<laughs> Aïcha ma daal di ko nuyu rek dalal ko Seck Ndanane comment vas-tu ce matin. bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa <laughs> taalaa wa barakaatu. MD yaa ngi yoole yoole de. xas yàlla <laughs> MD boo maa ngi xaar ba nga yoole ma. et puis et puis euh, hmm. naa la bu baax ak ñi ñu seetaan mais mais mais MD. moo ma téye ci benn stage du la wax lan la mais benn stage bu grave boo xam ne xam nga xam nga liggéey. ngay liggéey ak ay nit yu bëgg a partagé. dafa neex si xol. justement si si si et ça hier par exemple j' étais j' étais tellement xoolal j' étais j' ai fait comme ça j'ai jubilé. Ouais. parce que il m'a fait faire une chose un travail technique. et ça m'a plu et, et j'ai vu la générosité qu'il avait à me dire vas-y fais-le et j'ai fait et et, et un truc fort. Et, et l'humilité de le faire sur, surtout. Oui, oui, mais l'humilité certes, mais, mais lui, sa grandeur pour pouvoir m'apprendre. Tu sais, les gens ont tendance à se dire, bon, lui de ce domaine. Wow. Mais ce partage-là, MD, bravo on ne change pas une équipe qui gagne et c'est l'équipe de Subatel c'est l'équipe de D-Média moi je pense que dans toute la maison gars yi dañoo dañoo ñàkk ki ñaan ci partager seen xam-xam et loolu c'est très important mm. euh, beaucoup ah gis nga keroog invité bi dafa ñëw fii xàmmeewu ma <laughs> ndax pourtant tourné naag moom émission juste pour dire qu'aujourd'hui ici tu grandis et mm-hmm. ici tu deviens mm-hmm. polyvalent mm-hmm. merci beaucoup président de nous avoir inculqué ces valeurs là tant nag MD maa ngi ñëw man tamit dégg <laughs> stage mais nuyu naa la xasma. waaw ma dina fay naka suba si. ah ça va j'ai la pêche ce matin. tey alhamdulilah démb j'étais pas bien. oui j'ai j'avais remarqué waaw hier j'étais pas du tout bien. hier moom waaw mais mais alhamdulilah sant yàlla xam nga nit moom comme on dit yàlla ji lu mu def rek am na lu tax. justement. professeur. bonjour nuyu nañ la ba baax. fay naa ah, la. yàlla na yàlla professeur la jàmm. amiin amiin yàlla na yàlla seddal sa xol. Ah, yow ak say am di jàmm say jaboot. vraiment parce que y a un public fort. qui attend le professeur. Mhm. te loolu dafa am solo. ci ci ce en train de faire. vraiment chapeau merci yàlla yàlla yokk. merci beaucoup. allahumma amin professeur dalal naa c'est mm. toujours avec un immense plaisir. de me retrouver ici et de voir des gens généreux. justement xam nga Paa lu mu wax léegi ci MD rafet na. Mhm. parce que c'est justement ça l'esprit je crois que j'ai trouvé à Sen TV mhm. mooy cette générosité cette mhm. convivialité et mhm. c'est toujours un très grand plaisir de me retrouver avec vous bonjour également chers téléspectateurs euh, qui nous suivez de partout dans le monde du Sénégal partout partout et bienvenue sur votre euh, professeur, on restera sur cette générosité et cette euh, euh, euh, convivialité. Alors, les internautes, on ne vous oublie pas. Chaque matin, certains vont au travail. ils euh, se réveillent. Bah oui, voilà, certains m'appellent, <laughs> justement, euh, parce que Sauvetel en vaut la peine. Euh, Papa San, ils se lèvent, ils vont au travail. Tout à fait. Ils partagent quand même euh, Sauvetel et ils, ils, mmh. ils re regardent après mmh. le travail chez eux. Mmh. C'est mhm. hallucinant comment ils ont adopté le programme. Machallah, merci beaucoup à vous. Que tu n'es que Nyanya Kassenda au Manglenu, Dileziar Boubahabar, Alain Diémé. Je sais que tu es au boulot, mais justement, tu as partagé quand même avant de partir. Papa Assane Seck qui est parmi nous, qui est aussi l'un de nos internautes. Hein. Tu regardes avec moi, pourquoi Ou bien tu aimes me voir ouais. Non, en fait, je, je, je, je, je, je, je, damay damay kontaan gis ni ni ni gars yi di cette année justement mhm. Maguette Diouf Mouhamed Fall yéen itam maa ngi leen di ziar bu baax a baax naka seen suba gi mbaam mi ngi tàmbale neex yéen ñi nekk seen biir kër tamit di téléspectateur ci seen télé seen saali ñu ñëw rek jël seen ay temps euh, fas yéene ko nag euh, jël rek pour bégal leen ah pour informer leen aussi euh, ngeen may ñu ko itam bokk na ci ab yéwén kon nag ñoo ngi leen di jaajëfal yéen itam bu baax a baax Kia maa ngi leen nuyu noo def ça va voilà a jovial. def ci baax ndax gis nañ a baax ak Pa Assane Seck. saa su nekk di leen jaajëfal ainsi que les internautes fépp fu waay mënti nekk ñu ngi leen di bëggee lu bëree dañuy jot message comme ni ko Asma di waxee saa su nekk yóbbante bi dañ ciy jot moo tax yéen tamit ñu ngi leen di sàkku ci yéen ñaan aussi ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe ñu ñaanal leen ñu génn ci ak jàmm. justement am na solo Chérif Diouf il revient assez souvent il fait partie des internautes les plus fidèles ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax la météo c'est pour mieux vous servir et mieux vous informer donc yéen a ko moom encore une fois Ouri Ouri Thieye Diallo ñoo ngi leen nuyu yow itam euh, fi nga xamante ni euh, euh, moom moo di fii ci suba teel Kounia yow itam ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax Ahmed Fall Diaz Mareng ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax yow itam Baye Modou ñoo ngi leen nuyu ginnaaw bu ñu nuyante ba pare xam ngeen ni suba teel seen yëfa kon den leen di gën a partager muy gën di tasaare tasaare ci bi ñëpp di ci jot ndaxte liñ fiy def dafay am solo kon nag c'est votre euh, je pense que c'est votre euh, pierre à l'édifice euh, professeur c'est leur façon de de de de contribuer à ce que mm-hmm. qu'on délivre comme information comme leçon d'humanité puisse parcourir le monde Aïcha sans plus tarder on va prendre notre horoscope du jour juste avant notre éphéméride Bonjour et bienvenue. Voici votre horoscope de ce jeudi, Bélier. Il n'y a pas de bataille que vous ne pourrez gagner aujourd'hui. Votre confiance en vous sera excellente. Vous aurez le verbe haut et Et au travail, vous saurez vous différencier de la concurrence par l'originalité. Taureau, profitez de la matinée pour réaliser au calme les activités importantes de la journée, car l'après-midi risque d'être traversé par des conflits d'autorité et autres Gémeaux, une journée ludique et créative où vous devriez vous en donner à cœur joie. Votre sociabilité est au votre imagination aussi. Et au boulot, vous pourriez bousculer gentiment l'ordre établi. Cancer, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça tombe bien, vous avez suffisamment d'énergie et de désir pour l'affronter. Quelques embûches en prévision mais qui boosteront votre motivation et votre envie de vous battre. Lyon, la matinée démarre tranquillement. À partir de midi, vous devenez beaucoup plus volubile, exubérant, mais vous avez des idées et souhaitez les mettre en valeur. Vierge, vous aurez un comportement beaucoup moins raisonnable et rationnel que d'habitude. Ou tout du moins, des envies inhabituelles vous traverseront l'esprit. Un petit coup de folie ou de sang au programme, vous passerez pas forcément à l'acte quand même. Balance, excellente journée pour braquer les feux des projecteurs sur vous et briller. Au travail, vous serez peut-être mis au défi par des rivaux ou des clients, mais vous vous en tirerez haut la main. Scorpion, Vous aimez rester sur votre compte à soi, mais les autres vont tout faire pour que vous en sortiez. Ils veulent que vous preniez parti exprimiez le fond de votre pensée. Vous risquez donc de rencontrer une bonne dose de provocation. Sagittaire, vous envisagerez les situations de manière positive et dynamique. Vous vous projeterez mieux dans le futur. Et si quelque chose ne fonctionne pas, ne vous acharnez pas, osez faire table rase du passé. Capricorne, vous serez plus spontané et moins sur vos gardes que d'habitude. Peut-être un peu gaffeur aussi, ou même un poil colérique. Mais cela vous fait du bien d'abandonner votre légendaire maîtrise qui passe souvent pour de la froideur. Verseau, vous avez plein d'idées novatrices pour transformer votre travail, votre vie et peut-être même la société. Vous serez capable de défendre ces causes qui vous tiennent à cœur par de grandes envolées lyriques. Poisson, une journée gaie et insouciante. Vous aurez sacrément envie de vous faire plaisir et attention, la carte bleue pourrait chauffer. Suivez vos coups de tête, coups de cœur et envie de moment sans vous brider. Voilà, c'était tout pour l'horoscope de ce jeudi. rendez demain pour de nouvelles prévisions astrales. <laughs> sama mënum togg ceebu jën lañ fiy laam-laame may ndar-ndar ayca Pape Assane Seck euh, mu nekkoon euh, ki nga xamante ni moom moo di Mamy Samb bon retour parmi nous Mamy Samb merci beaucoup ah ci euh, li nga xamante ni moom moo di horoscope bi dafay soxal ñu bëri ñuy xam naka lañuy ñuy tàmbalee seen journée lan la seen signe astral di wax pour mieux se porter alors Pape Assane Seck du ñu demagum actualité dañuy daal di dem rek jëli li nga xamante ni moom moo di suñu éphéméride du jour maanaam fàttaliku alors aujourd'hui nous sommes le 23 juillet 2020 euh, nous allons revenir au 23 juillet 2016 mu nekkoon la remise du drapeau national à Rufisque à la délégation sénégalaise devant euh, participer aux Jeux olympiques de Rio boobu de wute naag jamono mbas mi waaw yàggul 2016 ak 2020 ça fait quoi quatre ans. Mm. justement quatre ans euh, mais mais mais <coughs> malheureusement bi xam nga ñun Jeux olympiques daanaka depuis 1988 Amadou Diaba. Hmm. amuñu un plus depuis 88 ak léegi ñaata at la. ñu ça fait voilà on est à. 32 ans 32 ans. 32 ans 32 ans yàgg na. disette bi. mais ba pare ñu am cette impression que ñun fu ñu gis Diaba rek day mel ni voilà euh, il a failli prendre la médaille olympique il était à zéro virgule je ne sais combien ñu ngi kaa bu baax mais 2016 Rio de Janeiro c'était le grand vide En tout cas, 23 juillet 2015, ce fut l'inauguration du port de Foundiougne par le président Macky Sall encore une fois loo wax ci port bi inauguration bi. Ah, loolu moom lu baax la wax dëgg yàlla. ci ci ci zone bi. Euh, mais mal xam nga lan mooy jafe-jafe bi. Hmm. le port d'accord mais en termes de rendu qu'est-ce que on a gagné dessus. quest que ça a permis Est-ce que sur le plan économique, dans la zone Foundiougne, est-ce que les populations ont ressenti cela Est-ce que ça a été un plus conséquent loolu question la d'abord tey ba sànq amuñu cette impression là man sam problème yëpp mooy inauguration yi baax na de mais la cay topp hmm. ak lañ cay gañe ak la muy jëriñ nit ñi foofu la wax bi nekk naam bu fi port bi nekkee ak bu fi nekkul wute na ça moom c'est certain mais en terme de gain conséquent y a un souci en tout cas euh, professeur vous partagez l'idée oui c'est-à-dire que paasan lu mu wax léegi am na solo anglais yi am na benn expression bu ñu am mooy total cost ownership mhm. c'est-à-dire euh, boo yoree benn bu ñu la joxee dara dafa am njëgu c'est-à-dire noo koy entretenir ak yooyu mhm. souvent foofu la ñu am problème ñun parce que dañu uti xaalis euh, euh, xaran nañ dañu xarañ ci loolu di uti xaalis di defar ay affaire di leen inaugurer mais après derrière li ñu leen toppee pour ñu gën a am njëriñ askan bi loolu moo des deseen di instant bi pense que foofu la ñu war a góorgóorlu a baax. En tout cas, le 23 juillet 1983, ce fut le décès à Dakar du professeur Amadou Taraware. Euh, il fut le premier Sénégalais directeur de l'École normale supérieure de Dakar. Mmh. Comment il s'appelle euh, euh, Amadou Taraware. Traoré. ah taxawaaxi oui bon c' que <laughs> non non mais que tubaab yi dañ daan jaxase suñu sant yi. kon daal tubaab yi c' est Traoré certainement ñu ne ko Traoré <laughs> waaw. école normale école normale wala ñu ne la en ngom. tubaab yi <laughs> njaay ñu ne en njaay ñoom fonk ñu fonkuñ ñu te pourtant bu dee russe la ñu war a wax ah. wala allemand wala américain dañ koy wax normalement dañ koy wax ñoom normalement dañ ñoo ñemewuñu leen dañ ñoo compté wul rek. est ce que prononciation quand même moo xaw a difficile. waaw parce que pays bu nekk aussi ak langue bu nekk ni muy prononcé. Ah, ah, ma jox la misaal. Ah. tubaab day ñëw fekk ñu bind Diop. Hmm. Diop si ci si si sur la phonétique wolof. professeur mu ngi nii toog. ci phonétique wolof am na nu ñu koy bindee. mais tubaab dafa ñëw bindee ko moom ni mu ko déggee. te sañul dem russe yi bindee russe ni mu ko déggee moom da koy bind na ko russe déggee donc ñun. malheureusement fa ñu départ boo waxee gis naa démb sax kenn ku ñuy tooñ naan ñu bàyyi leen tubaab yeeg xaw ma lan leen du ñoo ñu teg lépp mais il faut ñu xam ne que du question dañ ñoo teg lépp mais dafa am fenn fu ñu teg foo xamante ni ba tey ba sànq foog ñun ñu génn fa pour mun leen may jàmm ñoom ñoom ñu am jàmm ñu ñu am jàmm euh, sur le cas de l'école normale je pense que ci contexte bi ñu nekkoon si jamono boobu lu favorable la woon par rapport ak enseignement bi fii Sénégal ci niveau bi mu tolloon ça a été un plus quand même et jusqu'ici je pense que un professeur éminent est là je n'ai pas parlé de l'école normale devant lui. Ouais. Bah, mais déjà, il faut dire euh, félicitations et bravo, rendre hommage euh, à ce premier directeur euh, de l'école normale qui quand même est une vraie institution dans ce pays-là. C'est-à-dire que euh, borom xam-xam yu bari ñi ñi ñu may xam-xam suñu jàngalekat yi yëpp. Mhm. foofu la ñu jógee. Mm. donc nekk na loo xam ne lu rafet la te mu nekk euh, premier. sénégalais tam parce que avant ay ay nasaraan ñoo doon jiite. Mhm. gis naa ne école normale supérieure te léegi ñu ngi koy wax faculté des sciences et de léducation éducation des de l' éducation. Mhm. nekk na loo xam ne vraiment def nañu jéego yu rafet. parce que mhm. boo gisee ñun bu ñu nekkoon xale nekkoon lycée Blaise sunu ñi doon jàngale mathématiques ak physique yëpp ay nasaraan lañu. mais dañuy jékki-jékki rek. former ay yeneen euh, sénégalais mhm. ba nga xam ne léegi kenn dutul gis nasaraan ci école muy jàngalee mathématiques wala mu jàngalee sciences physiques il voilà mais donc fait malgré a été je pense que dañu war a gën a jàppalaate mm. école normale mm. di ko gën a faydal mm. euh, c'est vrai qu'à un man donné banque mondiale créé woon nañu problème ba ñu def ay Euh, opération des volontaires. Mm-hmm. mais euh, dañuy war a continuer di jox moyen. école normale voilà excellence mu mu continuer nekk institution de d'excellence boo xam ne parce que foofu la ñëpp lépp am. su foofu jaxasoo rek. jàngale yëpp day jaxasoo. li mu li mu wax nii. waaw <laughs> li wax nii. Euh, sunu baay bu baax ba baay Ibrahima Ibra. Mm-hmm. sama papa da ka daan wax yàlla na ko yàlla yërëm moom moo tax ma xam école normale. ok ci jaar jaar bu mu fa newoon woon un professeur de lettres. Mm-hmm. moom <clears throat> daf daf